maa ngi nuyu mbokki jullit yëpp di leen ndokkeel ci saxaru ramadan il mubaarak ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq xanu mën a eggale des ci koor gi ca anam ga gën a mag gën a rafet te suñu boroom nangul nu ko buntu waxtaan wi insha allah ni ko mbokk yi sàkkoo ñu ngi jëm ci masaahidu yawmil qiyaama muy xew-xewi yawmal yoo xam ne jaam bu nekk dana teew te xew-xew yooyee te benn xew-xew bu ca nekk am na lu ñu am na itam lu mu cay loolu na kon ku mu nekk ci war nga am yitte lool ci di xew yooyu waaye itam di ko waajal ndax faw wax na wa anna saata aatiyatun la rayba fiiha wa anna allaha yabaas man fil qubur te ne saa suñ taxawaay yowmal xiyaam nee na faw day ñëw amul benn ci ci sàkk amul te suñu borom tabaraka wa taala dana dekkal képp koo xam ne ku faatu woon nga loolu moo tax kon bu ñu nekkee ci dund àdduna bii di dund bu nekk rek benn passage bu gàtt ci sunu dund bu ñu ko dendalee ak dund bi nekk ci sunu kanam muy dund alaxira ñu bañ a woru ci dund àdduna bi jàpp ne luy wéy la jàpp ne luy sax la wala bañ a topp itam li fi nekk ci ay bànneex ba bañ a waajal li nga xam ne moo nekk ci sunu kanam ci ab delluwaay suñ boroom wax nañu ko yaa ayuha allazina amanu laa tulhikum amwaalukum wala awlaadukum an dikrillah wa man yafal dalik fa ulaika humul xaasiruun suñ borom ne yéen ñi gëm yàlla bu mu leen fàbbi mooy bu mu yóbbu seenum xel yóbbu seen yitte yépp toppatoo ay alal toppatoo njaboot seen yitte yépp ngeen concentré ko ci loolu alal ak njaboot ndax loolu mooy adduna almaalu wal banuun zinatul xayaati dunia te na loolu mooy taaru adduna lu baax la waaye nag bu mu taxa bàyyi bu mu taxa sàggane li nga xam ne moo nekk ci kanam borom ne ku ko def topp njaboot ak alal ba sàgganee fàtte ko suñu borom tabaraka wa taala te mooy di ko jaam nee na boo def day da nga bokk ci ñi perte mu dellu wax ne wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yatiya ahadakum al mawt fa yaqula rabbi lawla axartani ila ajalin qalil fa asaddaqa wa akun min alsalihin walan yuaxir allahu nafsan ida jaa ajaluha wallahu xabirun bima taamaluun borom ne dee leen dépensé dee leen dundale ci li ma leen wërsëgal balaa dee dikkal kenn ci yéen su ko defee muy mébét ñu bàyyi woon ko fi ba ca kanam ndax mu gën a def lu baax suñ boroom ne du yeexe kenn koo xam ne ab digam jot na aw fanam jeex na déesa du ko yeexee dafay daal di dem rek dellu ci boroomam tabaraka wa taala borom dellu ñu wax ne wattaqu yawman turja'una fihi ila summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum laa yuzlamun dee leen wattandiku dee leen waajal bis boo xam ne ci lañ leen di delloo ci suñu borom tabaraka wa taala teegu boobaa bakkan bu la mu jëfoon danañ ko ko fay fay gu ma waaye kenn du ko tooñ bu dee lu baax la kenn du ko wàññi bu dee ab safaan la lu baaxul la kenn du ko yokk na mu toll rek lay toll lu baax la sax moom suñu boroom ci coobareem dafa koy fulal dafa koy yokkal bu waaye la mu def ci bàkkaar moom buñ ko ko jéggalu itam nam toll rek lay toll yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci addis boo xam ne Buxaari yoog Muslim solo nañ ko jële ko ci Abdullah ibni Omar mu ne maa xaqu mriin muslimin lahu shay maa xaqa limriin muslimin lahu shay yuusi fiihi yafiiqu laylatayni illa wa wasiyatuhu indahu maktuba mu ne jaaduwul ci ab jullit boo xam ne am na lu mu bëgg a dénkaane naan bu ma fi doon jógee day danaa dénkaane nangam nee na loolee wërta fanaan ñaari guddi lu dul ne dénkaane boobu bind na ko testament bi mu bëgg a def na ko bind moom jàpp ne rek moom tee dikkagul ndax mi ngi ci ndaw mi ngi ci wér mi ngi ci jàmm bu jàpp ne dee moom lu sori la déedéet dee lu jege jege Abdullah ibn Omar radiallahu anhu nee na ba ma déggee wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jooju mu wax amul gën guddi gu may fanaan su dul ne fekk na sama dénkaane sama testament li ma bëgg ñu def ko su ma ci jógee bind naa ko fa teg ba tey jël ci Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa jàpp ci mbaggam ne ko kun fi dunia ka annaka garibun aw aabiru sabil wa ud nafsaka min ashaabil qubur wa udda nafsaka min ashaabil min ashaabil qubur yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko melal ci àdduna ne koo xam ne ab doxandéem nga fi maanaam da nga fi immigré rek te koo fi wala boog da nga fay transité di jàll awaabiru sabil da nga jàppee sa bopp ci ñi nekk ci bàmmeel da nga compté sa bopp ci ñooñu jàpp ne ci ñooñu nga bokk Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma daana wax ne ida amsayta fala tantasir sabaax wa ida asbaxta fala tantasir almasa wa qus min sixatika li maradik wa min xayaatika li mawtik daan wax ne su ngoon jotee bul jàpp ne da nga fekkee suba soo xëyee itam bul jàpp sa bopp ci ñuy fekke ngoon bu am cig wér da nga ci jariñu bu baax balaa feebar waaye sa dund itam ko jariñoo balaa dee yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne isnataani yakrahuhuma ibnu adam yakrahu al mawt wal ma wal mawtu xayrun lil mumini min al fitna wa yakrahu qillat al maal wa qillatu al maal aqallu al xisaab mu ne ñaar doomu aadama topp ko mooy doomu aadama bëggul dee te dee moo gën ci ab jullit mu tàbbi ci fitna da muy dund situation yoo xam ne ma ngay tàmbi ca la ñu tere la ñu ko tere lépp mënatu ko moytu wala ma ngay bàyyi lañ ko digal lañ ko digal ci diine nam ko war a dundee dundewu ko noonu loolu fitna la loolu boobaa dee moo ko gën ci moom mu ne doomu aadama bi itam bëggul alal bi néew da nee na alal ju néew dañ war a régler bu néew dëkk bu ñu lay régler régler ba day néew lu alal ju néew ak dañ ci alal joo xam ne ëppal say soxla alal yu ñuy jàll rek bare baree bare joo xam ne sax yow xamul noo koy def xamul noo koy dépensé mën a noo ko waaye alal joo xam ne barkeel na day na sëkk ci paj li ngay aajowoo ci alal sa mbirum bopp sa mbirum njaboot sa digganteeg jaamu yàlla yi ak gépp jaamu yàlla goo xam ne ci alal lañ koy def boroom jàpp nalal la ko loola bu boobaa sa alal bu néewee itam barkeel kon war nañoo waajal dig dee mu ngi ci suñ kanam te bés bu set noo ngi koy gën a jege kon loolu war nañ koy séentu bu baax dañ koy waajal ay bakkaar delloo da koy moytu yi nga ci amee woon it ko bu dee ay alal la yuñ mën a delloo jublu nag ci topp yàlla te sa programme li ci ëpp nekk jaamu yàlla loolu balaa dee ñëw borom ne yi nga xam ne waajaluñu woon su dee ñëwee dañuy wax ne rabbi ji'uun yàlla bàyyi ma fi delloowaat ma ma dund la'allii a'malu saalihan fiimaa tarak ndax ma mën a def jëf ju baax ci li ma fi bàyyi borom bi kallaa innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yawmi yub'athuun إذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون borom ne loolu bu ko nit ki bëggee itam loolu du am te bu xasee ñëw moom kenn mënatu la def di dund dafa sës rek mooy barsax alxayaatul barsaxiya muy dund gi nit ki di dund ci bàmmeelam ba bañ koy dekkal mu génn ci bàmmeelam borom dellu wax ne qul inna al mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum summa turadduuna ila aalimi al gaybi wa shahaada fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun dañu nga xam ne dañuy daw dee lépp loo xam ne jege na dee sax bi mooy tandi ko loola ko daw dañ leen wax ne dee moomu ngeen di daw tay dajeeg yéen dëkkul da ci gannaaw rek la nekk nga daw di ko gën a sori waaye moom lool gën a dem yaa ngi koy gën a jege kon da ngay dajeeg moom ndax day dikk day dikk hatta isa jaa la wax jaa ahadakum al mawt dee day dikk comme day dikk nag te yow yaa ngi dem te dund baa ngi dem kon kooku da ngay ci dañ borom bi dala wax ne afara ayta in mattaanaahum sinin summa jaahum ma kaanu yuadun ma agna anhum ma kaanu yumattaun borom ne xanaa gisoo ne nit ñi su ma leen fi bàyyee bay leen fi jàmm bay leen fi xéewal ay ati ati at at ya nu mën a toll nee na bis bu dajeeg lañ ko digoon fekkente ne nekkul woon kuy rafetal la nee na dund bi fi nekkoon lépp lim yàgg yàgg jëriñ dara maa agna anhum ma kaanu fattaw kon dund bi ak am soroom mooy ci liñ ko jeexal waaye rek du ndigal fi yàgg dee moom nag kon ñun ñëpp gëm nañ ko même ñi gëmul yàlla sax xam nañu moom dee moom foofu day am ñi ngi koy gis waaye nag ki gëm yàlla di gëm ne dee googu borom bi tabaraka wa taala mi ko joxoon ab dund moo jëlaat dund boobu ci moom fii ci àdduna joxaat ko beneen façon dundin dee moomu nag suñu borom tabaraka wa taala daf ko atte ci képp ku dund kullu nafsin daa'iqatul mawt wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama faman suffiha ani nnaari wa udxila aljannata faqad faaz wa ma alxayaatu dunya illa mataau lxurur di borom ne bépp bakkan rek buy dund fii ci àdduna fokk jaar ci dee su boobaa nag mboolem lu mu jëfoon pay ga ana ko mu ne nag koo xam ne suñu borom tabaraka wa taala musal na ko ci safara dugal ko aljanna kookee mooy texe texe dëkk mooy jot ci li nga doon wut mucc ci li nga doon ragal jullit bi nag li gën a kawe ci li muy wut mooy aljanna gën a kawe ci li mu ragal itam moo tax loolu mooy alfaw tex mu ne wamal xayaatu dunia illa mataaw dundum adduna bi nee na dañu fi am lépp ci ay alal nee na ay wor la rek ndax moomeel nga koo xam ne léegi nga tàggoog moom daal di koy moom kon loolu nekkul woon moomeel dëgg dëgg lu ñu la dénkoon la rek mu jaar ci sa loxo waaye nag ki la ko dénk moom may na la nga jëf ci lu la jariñ bu ëllëgee bu ko la ko la dénk rek nga xam ne na koy denc bu la laajee nga delloo yàlla moom li la dénk dala cee may nga mën cee jëf bu baax te loo ci jëf yow yaa koy moom fa anfiqu mimma jaalakum mustaxlasina di leen dépensé ci li nga xam ne yàlla moo leen ci wuutuloo dañ cee wuutu rek am na koo ci wuut te yooyu tam dañ ci wuut dee moom nag am na wàccaay moom la ñu dee sakaraatul mawt boroom ne wajaa at sakratul mawti bil haq ma kunta minhu taxib sukraatus dee day ñëw ci dëgg boobaa nag borom bi nit ki doon moytu doon ko daw ah, waxtoom jot na nag bu dikk waajtaay woowu lu metti la te itam ñëpp ci jaar Buxaari yu nett na di ci Aïsa radiallahu anha bi mu tolloo ci waajtaay woowu am ngeen moo gën a tedd ci nit ñi ay téewul jaar na ci ndax comme moom ni muy dikkee ci àdduna ni muy génne àdduna lépp a métti aw mat day judd mat bi gaayam ci yëpp bett na lool te suñu boroom moo koy fàtteloo da kon jigéen bi ci jaar dootu ci bëgg a jaar nag mbégte ak bànneex bi mu leen defal ci mooy tax du mën a muñ métti woowu métti bi ci ëpp bi ak métti bi ci mat ba tax duñ ca bañ a jaar loola kon moom dañ ko dénkuloon bay juróom moo ko dénku woon ko yëg waaye su demee bay dellu nag loolu moom moo koy yëgal boppam nag bay dellu dellu boppam loola moom itam wàccaay wu métti Aysa radiyallahu anha nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ci toog ko ci kawam nekk ci néegam mu ne dañ ko andil ndax loo xam ne ndox moo ci nekk nee na mu ciy dugal loxoom di raay ci xar kanamam di wax wax ne laa ilaha illa allah inna lil mawti karaa laa ilaha illa allah yee day am na sukuraat te noonu la doon def su ko def ba yàgg nag mu joxañ loxoom tàllal loxo bi joxañ ko wax ne ila rafiqil ala ila rafiqil ala waa ruuga génn ba tey li gën a teyoon Buxaari mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamee ne nag feebar bi tiis na lool tiis wi tàmbali na souffrance tàmbali mooy procédure dee bi nag déclenché na xam ne moom du du du arrière di metti rek ba ba muy ba yaram bi àttan ko ruugi dem te Fatima radiallahu anha doomam ci ne ci waxtu wax ne waa karba abata ay sama tiisu bàyyi bàyyi daal kii bi mu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko laa karba ala abika ba'd sa baay mi ngi ci aw tiis waaye tey lay mujj yëg aw tiis tiis woowu du buggal waaye fitra la ñu yàlla bindee doomu aadama ndax roo ni mu tëddee ci biir yaram branché fépp yaram bi su koy génn fokk nag ànd ak métit tamit woowu nag lu mu métti métti wuute naag nag boobu ki nga xam ne moom di dëmul yàlla julit bi moom ci métti naturel bi rek li nga xam ne mënta ñàkk day jaar te nu nee wi am nga xam ne mënta ñàkk day jaar waaye du bugal mu koy bugal waaye bu dee ki nga xam ne gëmul yàlla fa nekkoon mbedd yàlla wala muy bokkaale ñàkk a teg ci li ko yàlla digal kooku moom buggalam mooy tàmbali ci génn googu muy génn àdduna ci la buggal may tàmbale ci kon baa koy wax walaw tara saalimuuna fi xamaraati lmawt wal malaikatu baasitu aydihim axrijoo anfusakum te soo mënoon a gis da nga gis waaye gisoo xew dëgg dëgg te nit néew ci tënk bi sutura waaye boo mënoon a xam lim lekkee dëgg dëgg dëgg dëgg malaaka yaa ngi tàllal seen loxo di wax ne naroo gi génn am ne génn forcé lañ koy génn sallallahu alayhi wa sallam misaal na ko ci hadis ni roowu jullit bi génne ak ni roowu ku dul jullit bi génne jullit moom li muy génnee nee na day mel ne tedd bu ndox boo xam ne dañ ko wutal bun tiimale ko ci ndab muy toq toq toq toq ba jeex loolu lay génn waaye nee na bu dee bu ki dul jullit moom day mel ne wëtteen boo xam ne dañ caa def diw borom dañ bëgg a tàqale pëteel ak jiw boobu ne ci biir loola tiis lay doon bu booba Buxaari nekk na jële ci Omar ibnu Xattaab radiyallahu anhu mu ne wallahi law annani ilaa al ardi zahaban laftadaytu bihi min adaabillahi azza wa jal qabla an Omar ibn Xattaab radiyallahu anhu doon wax ne bu ma amoon ba fees suuf si ak or danaa ko jotoo ngir mucc ci mbugalum yàlla bala maa dajeeg mbugal loolu la ci borom tabaraka wa taala wax law anna lilladina zalamu ma fi l ardi jamian wa mislahu maahu labtadaw bi suuil azabi yowma alqiyama te ñi xam ne dañoo tooñ seen bopp bi jaar ñu di leen yàlla jaarloo ci méetal ko ci tawxiid jaamu ko jaamu wiin wu tëb sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu deful loolu tooñ nga sa bopp te amoon adduna lépp ñu am beneen adduna bu ñu leen ñu joxe ko danañ ko astana joxe ngir bëgg a mucc ci mbugal bu ëllëg mu ne xamal ne kon àdduna du fi jar dajeeg mbugal ëllëg dégg ko fi topp rek wut àdduna wuti bànneex ba tax nga sàgganee jaamu yàlla ba tax itam ngay tàbbi ci li la yàlla tere kenn rek sa bànneexu àdduna la loolu ku ko def defoo loo xam ne lu boroom xel di def ndax ku dem ba dajeeg mbugal ma nee na loo amoon ci àdduna rek danga ko àttana ñàkk ngir mucc kon almasanul awwal muy teewuwaay bi bu njëkk bi ay teewuwaay la ay point la yoo xam ne doon li nga jëm ba ba ngay teeri sa kër ay point de contrôle la yooyu taxaw yoo xam ne benn bu nekk da nga ca romb ca romb ca romb ba ngay teer ci sa daarul xaraam kër gi nga xam ne nag moom boo fa xasee yàgg nag foofa ngay sax imbal janna wa imbal naar ba di safaan Usmaan ibnu Affaan radiyallahu anhu daana su tiime bàmmeel dafay jooy ba sikkim bi tooy dina ko yow Usmaan danañ tudd aljanna tudd safara te doo jooy lu tax nag boo tiimee bàmmeel nga jooy mu ne damaa dégg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne alxamru awalu manzilin min manazilil axira ñu ne première wàccuwaay première étape première arrêt day njëkk a taxaw ci alaxira mooy bàmmeel mu ne fa in najaa minhu saaxibuhu fa ma baadahu ay sànni nee na boroom su mujjee bàmmeel nee na lu ca topp rek di gën a jàpp gën a yokk wa in lam yanju minhu fa ma ba'dahu asadd min su ca muccul nag nee na lu ñëwat ci tam nag gën a métti gën a sax mu ne dégg naa yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne maa raaytu manzaran qat illa wal am am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne gisuma benn melokaan lu ñuy xool lu dul ne bàmmeel ko gën a raglu bàmmeel raglu na lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam hadis boo ne Barra ibnu Aasib bu ko nett li bi wax nit ki nag di koy njëkk a arrivé ci buñ ko suulee ba noppi daari malaayika danañ ñëw yatiihi malakaan daari malaayika danañ ñëw tij ko am mu jóg ko man rabbuk kan moo doon sa borom ci ñi bañ bokkaale bëgg nga am tawxiid waaye boobu lañ lañ jëkka laaj kan moo doon sa fekkee da nga ci doon boole leneen booba dirigé amu fa di nekk ca xol bi rek loola mooy tontu laaj ko itam lan moo doon sa diine wala itam moo tax diine ji du wattee wattanik bi ci dugal bidaa bu yàlla santaanewu nabi sallallahu alayhi wa sallam jàngalewu ko loolu boo ko defee diine du diine ji yàlla wàcce woon ci yow te moom la gërëm war a diitu la ko mën islaam a diina gërëmal naa leen lislaam muy diine ba kon lislaam moo mag aada yeeg cosaan yi ba ñuy wax loola yow say maamaat tax judduwuñ booba amooy aada amooy baax amooy cosaan amoo boo jiite yooyu yëpp nag boo juddoo ne ngay jël ay aada ki baax ak bëgg a wane ne loolu sax nga jàpp ne yow moo jiitu diine ji loolu ak nag ka xam diine jaam ak loolu lépp bi nga duggee ci lislaam rek bokk nga ci borom bi doon waxal ne radiitu lakum lakum jooju dugg nga ci biir gërëmal naa leen lislaam diine ji kon lépp lu wuteeg lislaam rek da boo li nga war a def ci yëpp mooy xam luy lislaam amoo beneen programme bu koy def bu samay maam luñ dewoon ak samay baay wala gox bi luñ fiy def yow laajal lii lislaam rek dañ lay laaj lan mooy sa diine ko defee te ko am tawfiq koo xam ne diine moo doon lislaam ci sunna la dënk woon wattandiku lépp luy bidaa bidaa beneen doxiin la boo xam ne bokk rek yonente sallallahu alayhi wa sallam Obama mu tontu ne kon diineem mooy lislaam ñu laaj ko ne ko waaw ki ñu yónni woon ci yéen mooy kat huwa rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te dañ koy wax ne wa maa yudrika yow ko xame doo xamee ne yàllaay sa borom lislaam mooy seen diine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bi ñu yónni ci yow fa yaqul qara'tu kitab allah fa amantu bihi wa saddaqtu zalik man day damaa jàngoon téeréem yàlla bi gëm loolu boo ko jàngee alquran gëm ko tontu yëpp a ngi ci biir tontu yëpp a ngi ci biir rom bi wax na la ne taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum an la naabuda illa allah wala nusrika bihi shay'a alquran wax na nag kàddu gi ñu leen woo yéen ñëpp dañ ci woo mooy ñu bañ a jaamu ku dul yàlla buñ ko bokkaale dara def ci waat li waral bokkaale muy nu ñuy jàppante ci suñ biir fam ñenn ñi teg ci kaw ci des comme dina wala yettaqita baaduna baadan arbaban min buñ jëlante ci suñu biir ñoo xam ne dañuy jàpp ne du ñoom du ñu jaami yàlla kenn wala dañoo ëpp yeneen jaam yi ba ñoom dañuy yeyoo nit ña jaamu leen kon loolu la alxuraan jàngale woon ci taw bu dee lislaam waxoon na la ne inna diina inda allahi lislaam alxuraan waxoon na amul dara lu wala ban fa yàlla luñ koy jaamoo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñ boroom xamaloon na la ne ci alquran moom la yabal wa ma ataakum rasulu fa xudu wa ma nahaakum anhu fantahu loolu alquran waxoon na la kon ñett yi tontu yëpp da ngi ci wa jàngee alquran te gëm ko te nag gëm gi da cee am solo fa aman bihi fa gëm ko loolu mooy la borom bi naan yusabbitu llahu alladina amanu bil qawli sabit fil xayaati dunia wa fil axira yàlla day saxal ñi gëm yàlla am tawxid dëpp ci lislaam bu tegu ci sunna gëm yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko roy yàlla da leen ci saxal fii ci at duñ ci génnaat duñ ci génnaat ba faatu ca suñ ca faatoo itam nag moom la ñu dekkiwaale ba tax mu ne kon da leen ciy saxal fil xayaati dunia wa fil axira waaye nag la koy waral mooy nga am iman man bi moom daa ci jaatal sa bopp ba am bàyyi di la ko naroon a xañ yépp ba mën a am gëm gu wér ba yakfur bi taaxuut ba yumin billah faqad istamsaka bil urwatil gëm ji dafa am lu mu laaj day am loo weddi da ngaa gëm day am loo weddi yeneen yi ci des yëpp buy taaxoo lu ñu bëgg nga jaamu ko dem yàlla danga koy wedd bér doo ko gëm soo ci am dara loo ci ci sàkk nag buy utuñ billaa doo ko gëm yàlla nag gëm gu bët sëkk kooku la borom bi bëttee buum bu dëgër loo xam ne takk kooku tontu loolu dana dégg wootekat bu woote am sabaqa abd sama jaam bi day dëggal na wax na dëgg tontu yooyu mu tontu noonu la lalal ko ci aljanna laltaay yu bàyyi ko aljanna wa albisuuhu min aljanna solal leen ko col yu jóge aljanna waftaxu lahu baaban ila aljanna ubbil leen bunt aljanna fa yatihi min rawxiha wa biha fa fiha matu basar dubbel ko bunt jëmee aljanna ak xet bu neex ga nekk aljanna di ko ëpp ci biir bàmmeelam ñu yaatalal ko bàmmeel bi tolloog bu melokaan la ci ki nga xam ne moom gëmoon na yàlla waajaloon na bis euh, boobu ak delluwaay boobu biir bàmmeel amma ki nga xam ne nag moom safaan bala kaafir la weddi la ak ci xoromam yi am yépp moo xam la wala musrik la ñoom ñëpp ñoo daje ci koofu loolu lépp dañoo weddi borom bi tabaraka wa taala kooku buñ nekkoon man rabbuk du am ton day wax ne xaw ma ñu ne ko luy sa diine mu ne xaw ma ñu ne ko kooku ñu yabaloon ci yéen mooy kan mu ne xaw ma moom it dana am wootekat bu woote sama jaam boobu day waxul dëgg kon moom it lalal leen ko laltaay yi safara solal leen ko col yu bàyyi koo safara ubbil leen ko itam bunt dem safara tàngoor wa ak la di ko fa fekk la borom bi ne an naaru du'raduuna wa asbiya da nga leen di gaaral di leen safara suba ak ngoon te nag ba yowmal xiyaam dikkee nag ba yowma taqumu saa adxilu aala firawna asad al azab comme bi ne dugal leen firawna ñi mu àndaloon ñi mu bokkaloon aw doxiin dugal leen leen ca mbugal ma gën a radiallahu anhuma nee na am na benn yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa di dox ak ak saxaaba yi ñaari bàmmeel te borom ñaari bàmmeel yii day ñu ngi leen di mbugal te liñ leen di mbugal day lépp woon du rëy lu jafee baax kenn ki mu ne def daawul tu buy tuur ndox jàkka suturlu buy tuur ndox li muy tekki mooy du làppoon ak tuur ndox dañoo war a waajal fañ man faa am loo dindee sobe sa boo noppee bu dee bu nit ki jot rek bu mu ko diggale rek bu mu njëkk jot def ko am teg waajtaay wa mu war a àndal li tekki mooy sobe sa di dana def ci ay yéeréem def ci yaramam bu dee kenn ki ci def moom daf daan dox di rambaaj jaxase ay diggante yàq diggante nit gene yi mu wax benn bu ci nekk bu yomboon a moytu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daal di tàgg ñaari car cari garab yu tooy wala mu tàgg benn caru garab bu tooy xar am ba ñaar benn bàmmeel bu ne mu samp ci tan mu ne tax mu waaye falal leen bëggal mi ba ba muy wow loolu dafa bokk ci sati yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko suñu boroom jagleel ak itam doon ci amalaale tekkiinu nit ci seen biir bàmmeel ndax dañu nekk ci xéewal wala ñu nekk ci safaan ba di mbugal dundiinu bàmmeel googu nag alxayaatul barsaxiya diin woo xam ne suñu boroom moo xam na fa nit koy dundi am ngeen doomu aadama yi ay façon dundiin du la am da ki nekke woon ci baayam ci ndiggam booba ba nga fay dund boo dundiin xamul du fa naka noonu bi mu nekkee ci biir yaayam itam dëgg la léegi science dana wane nu bari ñu mën a xam xale bi nu mu nekkee ci biir bi mais na muy dunde dëgg dëgg dëgg ak la andi ca dund ba moom it yàlla moom nga xam ngeen ne kenn ku ko mën a fàttali ko it amul soo weddi ne nekkoon nga foofu di dund waaye mënoo fàttaliku na nga fa doon amatu naka noonu yi dund bi muy dundaat fii ci àdduna juddoo bokkul ak moom bu nekk woon ci biir yaayam waaye bu fi jógee ci àdduna yi ba duggaat ci biir bàmmeel dund ba muy na ak la waaye bu ci la boo xam ne euh, borom tabaraka wa taala ko atte ci moom kon robb waay mooy bàmmeel mooy xaj bu njëkk bi muy teew waay bu njëkk bi ngay njëkk a teew foofu la nit ñi sàkkoog yow moom foofu la ñuy mujj a xamee dara te dugal ci biir bàmmeel la suul moom foofu nag léegi nag yow yaay dem foofu la nit ñi yem ak yow ah liñ mën daal mooy dina ñaanal te ñaan nga sax lay tax nga na amoon nga tawxiid waaye boo amul tawxiid dañ leen a tere sax ñu ñaanal la waaye ñoom suñu yaakaaree ne am nga ko te ba di la ñaanal wala sax ñu am ne amoo ko waaye ñu tere di la ñaanal tax nga jot ca ñaan tax nga jot ca sawaaun alayhim istaghfarta lahum am lam tastaghfir yem ñooñu nga xam ne amuñu pas-pas bu wér te yonent bi sallallahu alayhi wasallam la wax de gétt di mu foore keneen comme mën a doon bi ne sëriñ baa ko ñaanal wala diwoo ko ñaanal tax ñu ne moom am na sens koo xam ne ci caaxaan yu bari la nekkoon waaye ak kilifa bu ñu jàppee bu ñu naw teew fa gën a moom am na sens ndax diwoo ko jullee diwoo ko ñaanal ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn mën jege dara de bi te moom la borom bi waxal ne ko sawaa'un alayhim istaxfarta lahum am lam tastaxfir nga jéggalul leen ak nga bañ leen a jéggalul ñooyam ndax yàlla dina jéggal te yàlla doo ngay jéggale wa man yaxtuba illa allah yàlla kenn bu ko si biir da ko jéggalal jiw par force wa man yaxtiru zunuba illa allah daa ngeen yonente bi mooy jéggale wala maa jooju mooy jéggale ma déedéet yàlla ci boppam décision jéggal moo wa man yaxmilu dunuuba illa allah te nag ku mu décidé ne joxule ko kenn mënu la caa tax ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa waxal loolu kon te suur dama sax daf ko wax in tastaxmil lahum sabina marra fa lan yaxfir allahu la boo leen jéggul loon juróom ñaar fukki yoon ak lu mu bari bari mu a toll te moom defal nañ ko bidaaw defal nañ ko junni lu ne defal nañ ko ko borom bi de jóge woon ci même yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yeewoo ko amul tawxid yàlla du ko jëkk borom bi décidé woon na ba pare inna allaha laa yaxfiru an yusraka bi loolu moom da ko décrété ba pare laa yaxfiru an yusraka bi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha te nag nee na walan tajida li sunnati llahi tabdila maa yubaddalu xawlu ladayya samay wax kenn du ko sànq maa yubaddalu xawlu ladayya wax na ko ba pare inna laa laa yaxfiru an yusraka bi parce que mbokk yi ku ne war ngaa góorgóorlu vérifier sa bopp bàyyi bokkaale bala nga fay jóge péntin yeeg xaaw yeeg xar nga fuufa yeeg yooyu dañ ko baax dañ ko baax pare da ko tekki boo ko tekki wuti dañ koy nekk da ngi jëlaat kii dafa mbay moo takk kàllaaj rek andi paaka ñu takk kàllaaj jël jël si suuf yi di takk ko dañ ah dafa nit ki defal bopp ndawaat ba mooy waajtaay wi de ndax yooyu yëpp at na la dafay takk yëpp bëgg fi ñàkk ak bëgg am wërsëg ak bëgg am darajaat bëgg am mbooloo loolu dafa tax ñuy takk yooyu te doo ñu koy takk te yooyu yëpp suñu borom tabaraka wa taala moom moo koy jox te yooyu même boo ko la itam moom lay wàññi kon nag dañu góorgóorluwaat defaraat pas-pas yi bu baax rawatina ci jamono jii nag bi ñu gën a bisalaate ak jibar di ñu ko gën a bisalaate di ñu ko gën a wanee ak ciatise ko mel na sax boo ay médiatise ko tasaare ko di ko bii nag ba ci nit ñi di ko bii nag ba ci nit ñi ci làmb yeeg ñu ni demee yooyu yu mat di wattandiku ndax du xaraam yooyu soo ko dee yàgg day mujj nga mel di ko nangu am nga koy dem ba di supporter ñooñu xërëbkat yooyu jaamukat xërëb yooyu da ciy am boo bëgg ci sa xol saa boo bëggee bokkaalekat rek yow jaay bokkaale ngay wi waaw bëgg yàlla ak bëgg ku bëggul yàlla mën ta am kon nag kon moo tax ngay wañ a taw di leen bëgg te la koy waral mooy nga bañ di leen xool wala ngay bañ di sopp tool la ñu lekk doomu aadama itam lépp lu mu def yitteem di ko topp kaw di ko seet bu nu jàmmaan bu il faut mu am fu mu jëkkee ji kon man nay wattandiku bu baax masadu ñaareel bi xew-xewu ñaareel bi boo xam ne doomu aadama dana ci romb gannaaw bu mu nekkee ci biir bàmmeelam ak situation ba fa nekk gannaaw bu ko malaaka yi réglé ba noppi mooy premier constat bi lañ njëkk a defal mooy doog a arrivé rek dañ lay constaté xam li nga dikkee yow daal lay péetale fi nga war a péete nga daal di nekk ca loolu arrestation la rek koo xam ne accueillir nañ la ci aéroport bi muy bàmmeel bi mooy aéroport àlaxira foofu nga arrivé def nañu contrôle bi seet na ba xam yow hôtel ngay dem wala ca prison nga koy dem moom moom ñoo lay ñoo lay ñoo lay jëlee foofu moom bu mu ci mën a doon nag foofa ngay nekk di xaar ba dig di jot di suñu borom tabaraka wa taala di jeexal adduna bi te nee na jege na de iqtaraba li saa comme ko waxee ak ko ci ñaari saam iqtaraba linnaasi xisaabuhum wa hum fi xaflatin mu'ridun nee na nit ñi seen rek léegi jege na lool donte ñu ngi sàkkan rek waajal boo xam ne iqtarabati saa yowmal xiyaam jege na lool borom ne wanu fi xafis suuf bu ñu woolee bufta bi ak suur tëb sallallahu alayhi wasallam firi na ko nee na béjjën la forme béjjën la yor wax ne malaayika bi ma ngi ko tax di déglu yàlla jox ko digal mu war ko su ko woolee woon bu njëkk lu fi desoon di dund lépp day faat fa sa'iqa man fi samawati wa man fi l ard illa man shaa allah lu dul ñette yàlla génne war nga ko dégg rek bu la ci yàlla génnewul bu la fekkoon ngay dund da ngay daal di faatu même ku ne ci asamaan ak ku ne ci summa nufixa fiihi uxraa toog ab diir bu toog suñu borom bu diglewaat bu waraat bu su bopp fa idaa hum qiyaamun yan boole rek ne ni ñëpp dal di jógaat taxaw di xool gis wa asraqat al ardu bi nuuri rabbiha ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون dina bu keroogee nag suuf si leer ak leer ci borom tabaraka wa taala jant su fi nekk ku koy leeral leer ci borom moo koy leeral kenn ku ne itam na ngay jariñoo ca leer ga bët ja ngay xoole ndax xool gis ñaar la laaj ak leer ak bët bi ngay gisee léegi moom ci bitti la ne ci la li tax ñuy mën a gis leeru jant bi nii dégg ku dee ataalam la am leer bët bi doo a gis yomal xiyaam nag leeru suñu borom mooy mooy jant ba mooy leeral lépp te leer gi mën a communiquer moom nag mooy leeru gëm moo mën a communiquer ak leeru yàlla gi te foofa duurul iman rek leeru ngëm yàlla moom lañ koy gisee ba tax ngay gis naa fekk yi ak ñi amul woon pas-pas ku wér duñ amul leer buñ séenee ku gëm yàlla moom bu leer nañ daan ko moom suuna jàllal bi ku leen xool fii ndax a bis min nuurikum du mën a tibb ci seen leer du mel ne teeru ampoule rek nga ko niitaaleel ma fii niitaaleel ma nu ànd muy ndéet ngay dox bi dox loolu la daal di fii bëgg bu yomal xeex loolu la ñuy wax ñu gisee ku gëm yàlla dafañ la xam yowmal qiyaam ñëpp koy xamante yataarafuuna baynahum la borom yoo nit ñi bu ñu gisee dañuy xamante da koy waral sax daw gi mu wax di ngay di ko jëfandikoo maa ko bind ak kii boo xamul ko nit ñi sa bopp la noo koy dawee koy xam wa ummihi wa abi da ngay gis kii sa yaaya kii sa baaya wa saahibatihi wa bani kii sa soxna kii say doom nga di leen daw boo xamul kay doo ko daw ngay xool ba xam ne kee ngay fexe noo ko réere kon dinaa leen naq tamit nit nooriku tey laaj bi xaw ma ak fan tamit suñu borom. duñ leen dellu leen gannaaw ngeen mu ci waatu leer fii tey kenn du ci yor leerub jàmbur bañ ko doon wute weesu na biñ koy waxee rek dañu daal di téye seen diggante kon loolu ba bay na ko ci sóor sóor mooy muy gudd a gudd a gudd a gudd. la ci kasar nañ moom la ñuy doxalee diggante ñi gëm yàlla ak ñi gëmul yàlla. borom ne bu boobaa rek ñu teg téere yi téere yi malaayika yi doon bind pisement bi kenn ku ne ñu andi sa dossier teg ah daal dafa nekk yëpp am nañ fa dossier pisement bi dañ lay andi dañuy andi dossier yi teg greffier yi dañuy andi dossier yi tegal ko si boo dee am kitaab boo ci abin nabi yéen ñu andi yonent yi yonent yi ñëw teew ndax ñoom la yàlla yónni woon ñoo mën a témoin ku nekkoon ci seen diine ak ku ca nekk ba tax ñuy def ci diine loo xam ne amoo ci digal yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu yonente bi ko témoin bu ëllëgee ba taxoon mu ne man jaa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad man amila amil amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad ku jëf-jëf boo xam ne amoo ci suñu ndigal amoo ci bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dana koy delloo mu ne wa ji abi nabiyina wa suhada andi itam seede yi yi nga xam ne ñoo doon seede wa qudiya baynahum nag bil xaq atte seen diggante ci dëgg waxum laa yuslamu duñ tooñ kenn bu keroog digg nañ ca ci jële ci Aïsa radiallahu mu ne dégg na yonente bi sallallahu alayhi wa alihi ne nit bu ñu nekkee ci bàmmeel dañ leen di jiital may fang dañ leen na bu boobaa ñu soli dàll ñu soli si gér ay yéere góor ñi itam dañuy mel nañ meloon ba ñu duggagul néegu góor nekk ay aat Aysa ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah bu boobaa góor ñi jigéen ñuy xoolante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa Aysa al amru asad min an yansura ba'dahum ila ba'd mbir ma gën naa tar kenn ci tala xool borom kenn dalu ma xoolante xoolante bala ko dal day fekk sam xel te ma tala xool li ngay xool ak di ko seet da nga gis waaye doo ko seetlu ndax xel ci leneen la nekk bu dee boobaa danañ dajale nit ñi ci suuf su weex tàll soo xam ne su tàlli la amul ay suuf wala ay xur def fa tàll ba tax borom bi ne wa barazu lillahi jamian ñëppay yàlla kenn amul poo làqu wala koo dëbb ak pàkk bu ne tànnan la boo xam ne amul xut amul sut ñu jële ji miqraanul aswad mu ne dégg na yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu def boobaa boroom dana jegeel jant bi bi day tàng bi yoruk leer nag waaye dana yor tàngoo nee na mu jege bindéef yi lu tolloog mille am tolloog kilomètre da leen di tiime mu ne nit teg ci kan seeni jëf dañuy mel ci aw ñax am na koo xam ne aw ñaxam ci ay dojor tànkam rek lay yem am koo xam ne ñax wi day ñëw ba tolloog buum yi am koo xam ne ñax wi day ñëw ba tolloog paasam am koo xam ne nag ñax mi sax dafay dafay laaf maanaam day ambale ci mi ñëpp sant bi sallallahu alayhi wa sallam joxal gémmiñ gi wane na ñax mi day ñëw ba toll ci gémmiñ gi lim taxaw lépp ci ndox loo xam ne aw ñax la woo xam ne ci moom la jóg boobaa nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ci borom dana am juróom-ñaar ñoo xam ne moom dana leen keral juróom-ñaar yi catégorie nit da doon ñu bari lool waaye critère yeneen ca dugal yeneen ca boole yooyu la ñuy tudd mooy juróom-ñaar waaye nit ñi moom duñ juróom-ñaar rek bu njëkk mooy imaamun aadil gis lu maanu gis dëkk chef d'état baag ministre baag député baag képp koo xam ne ba ci gis di ci gërëm groupe kër gis islam moom bu ñu defee ne imaam ci julli rek la koy wax déedéet imaam poste bi gën a kawe ci lislaam bépp responsabilité boo yor rek ci lislaam imaam bi imaam bi di imaam di def ci julli nga war a def mooy war ngaa xam ni ñuy jullee julli war nga ko teg ci ordre nu julli du ci posé nit ñi itam nag ànd tag yow kon noonu la war a demee doo ko doxale sa bànneex doo ko doxale itam te xamuloo ko waaye nit ñi itam nag boo ko doxalee ci yoon daa war a am ak yow. li feeg nit koy mën a doxal rek su ñu ne dañ ko fi jëlee te xew léegi ci doxaleen yi jubul yi nga xam ne ku fa nekk ak ñette ne ñëpp la ñuy def mooy jëm la xool seen liggéey bi yëpp mooy lool yëpp la fa jëlee yow itam la ngay def mooy noo ko jéem a toogee rek am bëree lay doon rek. yooyu ñooy waroon laa rek rek ilimaan yoo xam ne nit ñaa ngi koy bëgg rek muy taxaw moom itam di résister di wane rek du fi jóge ba bañ julli lu am di bañ ba lii nit ñëwee ko ñëpp di rëcc bëgg mu jógee fi mu taxaw ba keneen taxaw moom itam bu ngay jël rek taxaw moom itam ne du fi jóge bañ julli lu am ilimaan dañ koy bàyyi mu taxaw normal ba fi julli gi jeex kenn jéemu koo xool li remplacé ci biir julli kenn du ko remplacé julli ñu la ilimaan boo jullee ñaar rakka bàyyi dox keneen mu julli ñaar rakka limaam mooy jël rek ba mu jeex te sax bu keneen julli ñëwet mooy jiitawaat te beeg beeg kay man doxeenu ak bay itam noonu ñaareel ba mu ne ndaw loo xam ne dafa jóg rek jëm ci jaamu yàlla sàmm bu nasaa jeexaate ndax ndaw yi ko soxla dafa bari loo xam ne yàq la rek ndaw la ci soxla daw loolu bàyyi loolu nag jëm ci jaamu yàlla loolu may na ko daraja bu nekk ci wet imaam maan boobu ci keppaaru suñu borom tabaraka wa taala ko ak koo xam ne nee na am xolam mi ngi aju ci jàkk isaa xaraja minhu atta yahuda ilay saa bu génnee jàkk ba ba mujjee dellu si waat xol bi mi ngi ci jàkk mu jëna jëm mu jëna nekk ci jàkk ji déedéet fa ida faragta fansab boo noppee ci julli ji demal sonn waaye wa ila rabbika farxab sa xel nam te bépp nag won na yaa ngi ca marché ba yaa nga ci atelier ba yaa nga ci bureau ba foo mën a ne sa xel nam te bépp sa bëgg-bëgg jàkka jar jàkka jar bi nga yàkkamtee demaat mooy rek jàkk waxtu wa jotee loo nekkoon da nga koy bàyyi daal de laa tulhiihim tijaaratu wala bay'un an zikrillah iqaami salaat ba Italie takk mu ne ak ñaar ñoo xam ne dañoo soppante ci yàlla te la ñuy daje te la ñuy tàqale bu ñuy dajee di ñu soppante bu yàlla mi ñu bokk bëgg loola mooy programme di leen dajale seen soxlay bopp dajale wu bu ñuy tàqali ko itam loola leen tàqale mooy kenn ku ne am na looy defi ci li la yàlla digal loo xam ne mënu ko ànd ak kii mu dem defi li mu war a def nga dem defi li nga war a def ci la ñuy daje ci la ñuy taxale mu ne ak waa joo xam ne tudd yàlla wéet ku wéet bu fàtteku yàlla ay ram ko ñam tuur ak waa joo xam ne nee na jigéen am taar bu am daraja woo na ko ci boppam wala bu dee jigéen yi dem góor bu am daraja am alal jéem na koo borow ke jéem ko woo tig mooy bu bañ kenn ku ci ne tànnulee loolu nga xam ne lu bakkanam loolu xaj fi di ci jëm la borom bi tabaraka wa dana ko boole ci ñi teral ak koo xam ne nag saraxe nag sarax boo xam ne nee na da koo nëbbu day war bi joxe càmmoñ bi xam xool misaal rek la ci ne ñi ko gën a jege du ñu xam li mu def soo xam ne ci la gën a jege say wëy rek sa xarit bi ngay ànd nag yëpp am na koo dimbali koo xam ne du ko xam da ngeen loo def rek nag am koo xam da nga ko ci rendre compte defal naa ko nangam defal naa ko nangam déedéet da ci yoo xam ne moom sa digganteeg sa boroom rek la ak ki nga ko jox in tubdu sadaqat fa li anma hiya wa in tuxuha wa tuxuha al fuqara fa huwa xayru la problème léeg-léeg sarax nga feeñal ko baax na fekkee boolu nga ne da nga mujj ci islam te itam tax keneen ku doon mën a def def tax waaye nag li gën ci yow bi koy joxe moom nee na nga dëbb ci la ngay gën a sore islam ci lay gën a sell itam kon loolu mooy tolluwaayu ñaareel bi mooy nag jekk bi ak taxaw nag te penc tax ñu tudde ko yowmal xiyaam taxawaayu ñetteel ba mooy taxawaay ba ak tiitaanga ja ak raglu ak rabb ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di rabb ngir ak sa jàmm dikk na ak Muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ana sayyidu nnaas yawma alqiyama man maay sangub nit ci yowmal xiyaam na ndax xam ma ko nekke te yàlla day dajale ci jëkk ñi ak ñu mujj ñi benn barab nee na ba ku woote ñëpp a koy jéggalu yusmiuhum addaari ku xool itam ñoom ñëpp nee na mu jegeel jant bi bit ci egg ci aw tiis ak njàqare boo xam ne mënatuñ ko dëkk su defee ñu ne xanaa gisu leen li ñu nekke ndax du am ko dem ci suñu boroom dinu ko ndax mu àtte jaar ci ku ne xam koy féete nee na ñu ma aw bu ñu jaaree ci yonent si ku jiit woon kenn ku ne ngan ñu ko yaa Muhammad anta rasulullah yaay dawal yàlla wa xaatamul ambiya yaa mat sa yonent yi wa qad laka min zanbika wa ma taaxar yàlla jéggal na la say ya mujj kon nag doo bëgg nga tiinul du yàlla xanaa gisoo li ñu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma daal di jékki ci dana daal di sujjóot neenam yàlla ubbil ma ci xeeti cant ak tagg ko yoo xam ne mësu ko ubbil fenn yàlla jàpp naral ko mu tagg yàlla sant ko taggiin woo xam ne kenn mësu koo tagg tagg gu mel noonu kenn mësu ko sant sant gu mel noonu nee na dina ko yow Muhammad siggil dallaay di dox nga tinu ñu tin la nee na ma sëggi daal ne ummati yaa rab <clears throat> yàlla sama xeet ummati yaa rab ummati yaa rab ndax xeet bi xeet bi day ñaanal ci borom tabaraka wa taala tin leen <clears throat> nee ñu ne ko yaa Muhammad adxil min ummatika man laa xisaaba alayhim min al baabil ayman te bi da ci tukki ci bunt bi féete nay joor noo xam ne kenn du leen réglé amaa ñi ca des nag ñoom nit ñi ñooy àndandoo dugg ca yeneen bunt mu ne maa ngi ci yàlla mi nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom yaatuwaayi bunti àjjana mu ne toll na diggante bakka ak ojo dëkk la bu sori bakka wala diggante Makka ak Basra Basra ma nga ca Syrie diggante bu toll noonu nee benn buntu àjjana rek bu ñu ko ubbee ubbi ñaari bataay yëpp nee noonu la yàq <coughs> mu nekk sa yoon Buxaari yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne dana dugg ci sama xeet aljanna juróom-ñaar fukk junni soo xam ne duñu leen xisaab kenn du leen rek la dañ leen di bàyyi rek di nee na mooy ñi nga xam ne daawuñu mocc même mocc mu dagan sax ñoom daawuñu ko def ñu ñaan ci yàlla rek léew nag mocc moom am na ci yu dagan mooy su fekkee ne tur yàlla la ñuy mocce alxuraan la ñuy mocce wala boobu li ñuy mocce am nañu ko dara ci bokkaale dégg dem ba ajoo man ngaa sàkk ci sa mbokk defal la ko waaye nag nee na ñi nga xam ne ñoom daawuñu ko def daawuñu gaax lu itam naan nangam dafa gaax nangam dafa aay daawuñu ñaasu itam ñaas yooyu façon fajin la waaye wa ala rabbihim yatawakkaluun dañ daan wakkil yàlla rek nee na ñooñu day am juróom ñaar yoo xam ne ñoom te di bàyyi ñu dugg aljanna kenn du seen seeni dossier ndax kenn woon ci borom bi tabaraka wa taala masalu ñeenteel bi tolluwaayu ñeenteel bi nag mooy xisaab ñëwee nag ba borom nag jeexal taxawaay bi léegi nag tàmbali na atte bi atte bi mooy kenn ku nekk da cay réglé borom bi nag wala nas'alanna alladina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin wala naqussanna alayhim bi ilmin wa ma kunna ghaibin nee na dinaa laaj yéen ñi ma yónni woon yonent ci yéen ndax yonent ci jot na danaa laaj yonent yi itam ndax nit ña wuyu nañ ba ngeen jot na nee na nag ma nett lañ leen sama bopp nag la am te yonent yi jot ni ak ña ko wuyu ak ña ko wuyu ndax nee na man yàlla ak tànk ma woon lépp maa ngi ko doon xam wala ndax kon na alay bi ilmin wa ma kunna xaa'ibin réglé boobu mooy te jëf yi la malaaka yi doon bindal ci ki nga xam ne dañ la koy jox yowmal qiyaam ne la iqra kitaabaka kafaa bi nafsika al yawma alayka te téere boobu la ñuy dëppale ak téere bi yàlla wàcc woon ci yow wa tara kulla ummatin jaasiya kullu ummatin duaa ila kitaabiha kullu ummatin tuddaa ila kitaabiha xeet bu nekk dañ koy woo ci téere xeet bu nekk dañ koy woo ci téere di ñu yónni woon Moussa ci ñoom di ñëwee fa ñu leen di jugé ca taabal ja tawrat ak xeet di leen di dinañuy xool ba xam di leen malaaka yi bindal seen téere jëf dëppoo na ak li ci tawrat bu ñëwee ci ñu àndoon ak Isa alayhi salaam te ak yonentam ndax gannaaw bu fi jógee moom ku ne moom nga àndale moom ànd toog moom ndax moom waxoon na ne moom mission bi jeex kon ne moom passation de service moom def na ko ba pare passe na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba koo xam ne moom génn na poste bi ba joxe ko yow nga continuer mooy sama ministre ministre boo xam ne passation de service ba pare ba keneen remplacé ko toog yow nga ne kooka moom moom la signature wala moom mooy déposé dossier moom nga koy jox yow daal na ko ne loolu ki fi parce que wax na ko wa is qaala Isa bnu Maryama yaa bani Israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yaday min at-tawrat te wa mubashiran bi rasul yati min baadi ismuhu ahmad te présenté sax yi ñëw maa ngi leen di communiquer di leen yëgal yonent buy ñëw sama gannaaw ismuhu ahmad ahmad lay tudd donc moom jeexal te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi konte moom annoncé wul benn yonent yonent yi di leen kon yëpp ku fiy jógee da ngay annoncé yonent la war a ramp nga xam ku bëgg wax ne yow la topp biir topp ga da cay bokk mu topp ki nga indi kon moo tax lu way di jëf war ngaa fexe ba mu wér dëppoog alquran dëppoog sunna yonent bi alayhi wa alihi bu dul loolu bu ëllëgee te xisaab ba alkana lay doon ci borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yukta bi jahannama yawma alqiyamati laha sab'una alf simaam maa kulli simaamin sab'una alf malak yajurruunaha nee na dañuy andi jahannama nee na bu yor juróom ñaar fukki junni na muy ay buum yi ñu wambate buum googu ñu teg këléem di ko wombat mooy am nos safara nag buum yooyu lañ koy takkal juróom-ñaar fukki junni nee na benn nos bu ci ne juróom-ñaar fukki junni malaayika ñoo koy xëcc ngir andi ko ci ñuy àtte xam nga dañ koy gis dañuy gis aljanna dañuy gis safara wa uslifatil jannatu lil muttaqin wa burrifatil jahimu lil xaawi yëpp àjjana dañ koy jegeel lool yéen ñi ragal yàlla yëpp di ko xool nga xam ne texe fay nga jëm waaye jaxiim yi dañ koy mburi mu ne fànn burrizatil jaxiim dil gaawiin ñeel ñi nga xam ne dañoo bewoon dañoo dëngoon ñoom itam di ko xool nga xam ne kenn ku nekk rek la di boo baaxlee xam nga fi nga jëm boo baaxlee wutin xam nga fi digg nañ sayoon Buxaari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dañuy andi noox yow man qiyaam ko yow noox ndax jot teewoon nga mu ne waaw jot dinaa de ñu laaj xeetam ne leen waaw ndax noox jot teewoon na ñu ne déedéet ñun day gisuñu woon pour waa kenn jot ci wul dara dañ ne texewul day wax loolu bu ko defee ñu ne ko yow noox nee nga jot li nga ñan ñooy say témoin ñan ñooy say seede mu ne Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak xeet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooy na ndax ñun yëpp lañ gëm du mujj ñëw ci gëm lañ yonent yëpp jàng nañ mbirum noox jàng mbirum Isa jàng mbirum yonent yëpp fi mu ne kenn buñ la ci waxtaan loo mën nga waxtaan ci kon mën ko témoin ba tax borom bi ne ko fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bi shahid wa ji'naa bika ala haa'ulaa'i shahida yaa leen di seedewaat yow wa kadalika ja'alnaakum ummatan wasatan li takunu suhadaa ala nnaas takunu ngeen xeetu Muhammad takunu suhadaa ala nnaas yéen te mooy nit ñi ak yéen a mujj a ñëw xam nga ci mujj a ñëw moom di ko jiit ñëpp xam na ne avant ki njëkk a ñëw moom ñi ñëw gannaaw ngeen mën a xam ñëw ba dem daa ñëw ba dem te yow yow yaa si ñëw ñu dem fekk ñëpp fekk ñëpp toog buñ ne ndax diw ñëw na rek nag dana ñëw na lu mu jàngale woon yoon yooyu yëpp liñ jàngale seen daawa yàlla résumé na ko ci alquran do wax na mu woote fam jaare ko nitam Isa fam jaare ko nitam Musa fam jaare ko nitam Ibrahima fam jaare ko nitam lépp ak ci alquran moo tax ñu mën koo seede moo tax mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daal di seede ne noox day jot dina kenn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seede muqaatil ne wax ci suñu borom wax ne wamtaazul yawma ayyuhal mujrimun te foofu yëpp ba ñuy egsi foofu ñuy àttee nit ñi dañuy jaxasoo ñu baax ñeeg ñu bon ñi ñëpp ay ànd fa waaye bu ñu essayé ba foofu nag dafa borom bi nag imtaazu al yawma ayyuhal mujrimun beru leen beru leen tey nag yéen ñi nga xam ne yéen doon kàccoor yi yéen a jubali woon bu leen jaxasoo teg ñi gëm yàlla génn leen biir ñu baax ni ngeen beru fa am nañ ko borom bi nag fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir léegi séparé wu na nag leen foofa la nit ñi séparé woo ñii féete nii ñii féete nii asxaabul maymana ñi nga xam ne ñooy féete ndeyjoor ak asxaabul mas amat ak ñi féete góor ñi féete ndeyjoor ñi féete càmmoñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci tolluwaay boobu ne amul benn jaam boo xam ne da nga bëgg fi nga taxaw kanamu yàlla mooy nga laaj na ñeen sa dund bi yëpp ci loo ko jeex dund bi globalement lépp foo ko sa yaram bi sa kattan bi foo ko ràppal foo ko jeexal sa xam-xam bi loo jëf sa alal foo ko jëlee ak foo ko dépense ko laaj kenn ku nekk te loolu mooy kaay ñi la yàlla joxoon ci nga di ko liggéey benn yàlla danaa njëkk a may séjour ci àdduna nga am di temps may na séjour boo demee ne woo dem itam pour nga mën faa liggéey li a jënd mooy seetu ba kenn du ramaat la la seetu fii ci at waaw la ah, ah, toog fi naa la dinaa nga neex seetu bi nag jàll bi moom xamoo waaye daal may nañ la carte seetu daaw am yaa ngi yaa ngi ci at kon mooy danañ la laaj ko paase am na ñu ko gàtte la lool ñu may la ci lu xaw a yaatu yàlla may la kattanu yaram moom itam ci loo ko teex capital bu rëy yàlla la xam-xam doo ci jëfe yàlla may la alal lii mooy la joxoon picc liggéey ko fii ci àdduna mooy yooyu yàlla nag da koy audité yow ma am dafay seet summa la tus alun na yow ma idin anin naxi summa la tus alun na def na leen laaj bu keroogee téewal boobu la yàlla defal bàyyi gim la bàyyi ngay dund téewal la may gim la may wér kàttan xéewal la may gim la may xam-xam xéewal la nga am diplôme yu kawe nga poste yu kawe xéewal la may gim la may alal it xéewal la benn bu ci ne nag yàlla na ko laaj ba am doo ko jëfandikoo koy xisaab ñu jële ci Abdi ibnu Xaatim hadis boo xam ne Buxaari yóbbu si leen ko bu ne bi sallallahu alayhi wa sallam amul kenn ci yéen lu dul ne yàlla dana ko wax ak moom benn interprète su dox seen diggante laysa baynahu wa bayna rabbihi turjumaan nee mu xool ndey joor du gis lu muy lim ci dal ci jëf mu xool càmmooñ du gis itam lu muy mu jiital ci xoolee ndeyjooram ay jëfam la fay gis bu xoolee càmmooñ tamit ay jëfam la fay bu xool ci kanamam du gis lu may safar mu ne kon nag fattaqu naara walaw dee leen moytu safara dee leen jëf leen musal ci safara doonte xale yi bu tàndarma ngeen di sal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu wax addis boo xam ne Aïsa moo ko solo Buxaari Muslim génn ko te man xuusiba yowmal qiyaamati xuusiba nee na bu yàlla rek la yowmal qiyaam dëgg dëgg rek la fokk ñu bëggal te ma ne ko ah yàlla kay xanaa dana rek la ñëpp ndax moo ne fa saw fa yu xaasabu xisaaban yasiira danañ ko réglé réglé bu jàppandi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko laysa zalika al xisaab innama zalika al ard xisaaban yasiira loolu la xisaab waaye ard mooy sa téere dañ koy fuyee rek paas paas paas paas rek daa lay tàmpale nga def fokk nag ñu koy xool ligne par ligne topp ko topp ko topp ko dina loolu kuñ ko def rek ko def kuñ ko def rek ko def ba tax mu ne in ban nuuqisal xisaabu yowma alqiyamati usdiba waaye gis nga xisaaban yasira da koy defal wa yanqalibu ila ahlihi masruur xam nga masruuram jooju muy dëkk ci sa njaboot daara ci dëkk benn bi te nangoo téeréem ci càmmooñam texee gi borom bi def ne innahu kaana fi ahlihi masruur kooku ci àdduna la woon lu mas a neex njabootam rek neex na tegu leen ci diine lépp luy yàqe seen antifique yaag parabole yaag lépp nga fa njaboot ne léegi lu leen neex ñu ne moom dafa am njaboot dafa bëgg njaboot bu ñëwee ci biir këram caaxaan rek lu neex njaboot gi neex na kooka loola du yóbbee neexee li nga bu andi ki doon yar njabootam ci lislaam nag nga xam ne këram moom neexewul woon noonu këram daanaka foofu ñëwee da ngay defee sax ñu def ci na xari ko ci wala maam jirit waaye ordre suñu borom la ci doxal waxtu julli bu jotee kenn ñemewute bañ a jóg di julli fajar kenn du ci tëdd kenn du ci nekk di musique ay góor ki jigéen du ci jaxasoo kër yëpp mu teg ko ci ordre alquran kooku la borom bi ne su paree ba noppi nag dem alim ila ahlihi moom masrura kon léegi nag ay def masrura ni boo ci bëgg kaana fi ahlihi masrur wala yem xalim ila ahlihi masrur ah masrur bu ci bëri moo gën de kër gi ndax xarit seen ëllëg boo gën kër gi neex tey tey na xari ëllëg kër gi moom du neex ñaari yoon moom moom kër daal tekki regal alquran heure yow jotee nawet da lay fajal yooyu da ngay fexe ba nit ñi miin ko ba kenn ñi mew sa tëgg heure boobu même boo fi nekkul moom bépp nekkul di bañ a mu nekk bañ a nekk autorisé boo xam ne yow yaa ko fi imposé mais da ngay fexe bañ gëm ne yàlla la jóge nga xam ne xooluñu la ci pour tukkee même boo faatoo lépp bir ba dañ ko mooy ki nga xam ne fexe ma ne ba sam fa régal boo xam ne mooy bi borom bi tabaraka wa taala santaane ci kër amma mazhabu juróomeel bi nag mooy al miisaan léegi nag bu ñu xisaabee xisaab bi mooy réglé li baax ak li baaxul asanaat yaa ngi nii tay at yaa ngi nii kooku noonu réglé nañ ko ba pare ba génn fi nga dëppoog alxuraan lépp ay asanaat la fi nga wuuteeg alxuraan ay sayi am te xoolal dafa doon fi wax wa tara kulla ummatin jaasiya kulla ummatin fudduha ila kitaabiha al-yawma tujzawna maa kuntum ta'maluun borom bi ne haada kitaabunaa yantiqu alaykum bil haqq te innaa kunnaa nastantiqu maa kuntum ta'maluun sama téere ngi nii man yàlla dëgg rek la doon wax ci alquran yeneen sa téere ngi mooy la nga doon def am na gaa yu coppite yow nastantiqu maa kuntum ta'maluun ñaari téere yi tege sama téere ngi man yàlla sa téere ngi dañ ko xool ñaari téere waaw day def de ñaari iqra rek boo defee iqra fii fii bu ak bi iqra bis bi rabbika alladi xalaq iqra kitaabaka ja dana yomb bu ëllëg boo jàngee téere bi yàlla topp ko sa téere boo koy jàng da ngay kontaan moo tax nit ci kontaan ku ne moon naan haa um iqra'u kitaab yi yaqul haa um iqra'u kitaab yi bu ko joxee téereem boobu lépp def ko alquran fu mu den dafa ne ko ah xoolal xoolal sama téere iqra'u kitaab yi ndax nag inni zanantu anni mulaqin xisaabi waaye ki nga xam ne moom jox nañ ko téere bi wax naan yaa laytani lam uuta kitaabi ak a neexoon ma bañ a jot sama téere bi walam adri maa hisaabi yaa laytahaa kaanati l-qaadi qaadiya maa aghnaa anni maaliya halaka anni sultaaniya sama alal di jëriñu ma dara sama nguur nga folle ko moom loolu doon tiitaroo ci àdduna alal laa am pouvoir la am tey nag nee na maa aghnaa anni maaliya halaka anni sultaaniya jàpp ko ba bàyyi borom bi ne xosoomu nga bu ñu àttee tribunal ba pare ba ba ba ba juge bi nag condamné koy wax sañ dana bëri so waaw ba ne nañ bañ ko fa ñaanaan dara waaw bu ñuy dugg àtte bu grave condamné à mort bu koy wax sañ daal di jóg defe gars yi daal di pomte pomte waaje rek daal di yóbbu kii nag bu waxee ba pare yàlla ne xusoobu jàpp leen xusoobu fakkulu man jaxima sallu summa fii silsilatin tarquhaa sab'uuna ziraa'an fasluku kon mbokk yi war naa bàyyi xel bu baax a baax a léegi nag suñu ak leen def yi ba pare yu baax yi tege lii ñaaw yi tege lii borom bi neen buñ ko kenn dañ rek benn al wasnu yawma idin xaq te keroog peese mooy dëgg wa nadaxu al mawasina al qista li yawmi al qiyama fala tuslamu nafsun say'a yàlla nee na balance équilibre yi rek lay teg kenn soñ kenn nit lu mu néew néew néew néew ci tuyaaba balance dana ko génn la yokkal itam nag benn bàkkaar falaa tuzlamu nafs wa in kaana misqaala xabbatin min xardalin ataynaa biha wa kafaa binaa xaasibiin nee na li nga def ci lu baax wala ci lu baaxut buuti woon ba fekk suuf bu ñu xara xara xar bu bët mën ci tege nee na naa ko indi man yàlla kuy comptabiliser naa leen ci fay yàlla doy na tëj koo xam ne moom dara du ko def ci la waxe ne fa amma man saqulat mawaaziinuhu boo xam ne nag balance u jiwam lu baax ak boo diis kooku fa ummuhu haawi ak foofu fii satin raaj kooku dégg ci dund boo xam ne bu ñu gërëm waaye ba am naa man xabat ba waa sinoo kooku fa ummuhu haawi ki nga xam ne nag balance yiwam moo woyof kooku jubluwaayam am pax la te nee na pax moomu kenn xamul paxam lu wa maa adraaka maa hiya naaru safara kon koo xam ne say jiw ngoo wat koo koy taxe koo xam ne nag ay ñaaw te moom ngoo wat mu gën a diis kooku mooy ki nga xam ne boo taxe jël nañ ci ay radiyallahu anha te dañoo tudd safara mu jooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko lan ngay jooy bu tamit mooy tax ma xamul yéen yonent da ngeen fàtteku seen jaboot dogal xiyaam wala déet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ci ñetti barab day fala yuskaru fala yaskuru fiha ahad ahada kenn du fa fàtteku kenn anil misaan hatta yaalam an yaqifu misaanuhu am yaqul ne ko fa ñuy peese teg sa ñaari jëf yi ci balance te xamoo boo ba xam yu baax yi day diis wala day wayaf nee na foofu moom kenn tëlul kenn ku ne yaa ngi moosant rek ci sa biir mu ne ko waa indal kitaab fa ñuy joxee téere xamagul ndey loor la koy jële wala càmmoñ la koy jële ak nag fasiraat ko gàllee ci kaw jaxal na ko dégg leen te xamu ko da ngay mën a jàll wala da ngay des ci biir nee na ko ñetti barab yi moom kenn tëlu fa kenn te ñetti barab yi nag mooy licencié yi moom bu nit doon soxla ndimbal foofu nga koy soxla ni moom bu xasee yàlla ah mbir ma dafay daal di leer fekkee peeseel nañ la bu baax sa téere joxe nañ la ko sa loxo day joor siraat jàll nga ko sa soxlaa texe nga texe nga bu booba kooku nga soxlaa woon intervention la borom bi ne da yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne kenn du la ko tal ndax li kulli mri'in minhum yawma idin boo gisee bokkaale garaaw itam suñu borom tabaraka wa taala ala atte na ko day wax ne wa yawma yaqulu naadu shurakaaiya alladina zaamtum neen ñi nga xam ne nee ngeen moo nee am na ku ma bokk ak yéen te yàlla ngeen ne ak diw wala ngeen ne yàlla wala kooka rek woo leen nag ñu ñëw ànd tey naadu naadu la woo leen seen gaaya fa daaw xum bu wóole dañu woote kenn ku ne nga jaar ci suuf ka ka nga doon booleeg yow koo wóor na mu wàcc waaf ci suuf waaye ñu wax mu di ma tudd fii pourtant bi mu di ma fi tudd mais sàcc bi jëm tribunal nga ko waxal ñi nga àndandoon ne sàcc bu xool ci benn ay jiw ne ca la bokkoon ah wala moo doon chef bi moom lu ñuy demoon bi ñuy sàcc ah problème fadaawhum falam yastajibu la borom bi nee na dañ leen di woo waaye kenn du wuyu kenn daa yatakallamu ñëpp dañ jàll te sax dañ koy weddi wa yowmal xiyaama bi yegg bu ne bi sirkikum boo fi bokkaale ba yowmal xiyaama bi bu ne man bokkaale wu keneen la doon jaam waaye du man istabarra allazina tubiu min allazina tabaxu wa raawu al azaaba wa taqattaat fiihim al asbaab te ñi ñu doon toppee nga xam ne moo doon bénéfice fii ci àdduna ci nit ñi buñ njëkk a denc nga xam ne kon kii bokkaale moom day doon toll te àllaaxira yaa ko a poñe waaye moom moo lay njëkk a poñe moom dara man ba man xaw ma ne sequ ma yow dara waaw waaw dem ci ci àdduna moo doon faral di jël sa alal jël sa temps jël sa lépp nga dem bala nga ko wax bu njëkkee suba ne ma gën daal yow xaw ma ak yow am istabara alladina tubi'u tubi'u la wax ñu doon topp ñooy denc dina la dina taxaw waaye gis nga moo tax gars yi téye sama jaa wax lii day ak li ma la bayal tool ak li ma la jox ci xaalis na la naa karra ay buñ delloo woon at dana gàtt sa bopp bay de fa a tabarra minhum kama tabarra'u minkum kon lii nga ma seetaane tey laa lay seetaane te ak bu ko fi seetaanoon yalwaan ci benn parce que boo xamee amoo benn métier amoo dara looy liggéey amoo benn tool ba noppi yor responsabilité o xam ne kenn xamul o mu toll ñu ngi ko yaakaare bu ñu ne ko joxatul woon ah oto gars yi ne ko bu ñu delloo woon àdduna bii nga nu seet te génn nit ñi du tey loolu it man la ñuy génne ci yow te andil dara te bu boobaa da nga tum rek kon war a xamal ne bokkaale moom perte lañ ñaar yoon te sonn fii ci àdduna yowmal xiyaam itam perte ba rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te waaw ndax xam ngeen ku fay mooy kan ñu ne ko ku fay ci nu ndey koo xam ne da doon commerce dem ba amatul xaalis amatul marchandise ba noppi yori bor ba ni leen kooku sax ya mën nañ koo baax mën ngaa gis ko joxaan marchandise bu commerçant waaye ki fay dëgg mooy ku ñëw yowal xiyaar andi na julli seet ko bu baax andi na or ñu seet ko bu baax asaka noonu jaamu yàlla yépp rafetal na waaye nañ ko xool beneen côté bi ku doon bindal ay ñaaw yéefam mi ngi doon xas kii mi ngi doon lekk alali kii dóoroon na dere ci kii dóoroon na kii lu ñëpp ay tooñ la yu mu tooñ bindee maanaam loo bari bari bari ay tuyaaba waaye nag bari ay tooñaange rawatina ñu dox sa diggante ak sa moromu bindee mu gën a garaaw nee na ñu dox fii ña tuyaabam jox di jox ba tuyaaba yi jël ci ñaaw téef yi bakkaar yi ña mu tooñoon te amul tuyaaba yu leen faye ñu jël seen i bakkaar ba wàññi leen seen i bakkaar bor bi moom benn nga fayee nit tuyaaba mu dolli koo ko wala nga ko bakkaaram ba ko ne ay bakkaaram itam tuyaabam day yokk nee nag koo fee mooy ki nga xam ne moo fay dëgg ko kat fa turi ak alayhi summa turiha fi naar bakkaari ñooñu ñu xëpp ko ko jël ko moom ko xëpp ci biir sax loolu mbokk yi kon bokk na ci gën a waajal yomal xew wattandiku ay àq wattandiku ay àq wattandiku jëw wattandiku xaste wattandiku rambaaj wattandiku nax nit di lekk alalam donte xamu donte sax moom dafa caan d'accord ndax jàpp ne li nga ko wax noonu la loolu itam bu boobaa lekk alali jàmbur dig neen yaa ko wax loo xam ne jàpp nga ne am jullit la mu doy loola ba tax mu jënd loola wala mu def loola lan lay def loo fekk lan ko defal du noona lan ko jaay wër jar loola loola bu boobaa ak yooyu dara ci réer sëñ bi war na ko moytandiku baax a Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mi ngi wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu yomal xeamee yàlla dajee la ci jëkk ñëg ñu mujj nee na day ne képp koo xam ne am na tooñ ne nit yoreel nga ñëwal ñu fay la nee na nit ki day kontaan lool doonte sax am na àq ñoo xam ne way juróom moo ameel wala doomam wala soxnaam wala mbokkam kenn ku ne yaa ngi jéem a fàtteku di la gënoon a jege àq boo am ci gis ñuy dawante walla tegee loolu ci ay wayjur ak ay mbokk dafa jafe lool du mujjante ci ay àq tooñaa ngi day def dox seen digg nee na lu mu néew néew néew rek moom du ko xet parce que borom bi dafa isaan lu fi xas ci buur fala ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaalu nee bu yowmal xiyaamee ba taxaw nee askan wu am njëriñ dëkkatu askan li mu daan den ko seen ne jiw bee jàpp ne boo nekkee ci coono dana la ci mën a génn tey ca yowmal xiyaam nag amante nañ waaye askan wa bokk amatu a wala am saaba baynahum yowma idin wala yatasaaluun suñu laajante sax ba mu nekk naan waaw ana sama yaay sama baay kuñ kuñ mujj ñëw wala mu naan ana sama doom déedéet di am daal fa man saxulat mawaasiinuhu fa ulaayka hum muflixuun wa man xaffat mawaasiinuhu fa ulaayka allaziina xasiroo anfusahum jahannama xaalidun juróom-benneelu bësat bi nag mooy romb gi ñu romb siraat ak rot gi ñuy rot di dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom fa ñuy àttee moom du fa yàgg dañ ñëw rek témoyé xeet témoyé ne moom jottali woon na confirmé ne moom jottali na alquran jottali na sunna daal di dem nag moom te dégg ba foofu lay xaar xeet bi bu taxee foofu nga koy fekk borom bi ne fa wa rabbika la naxsurannahum wa shayatin summa la nuxdirannahum xawla jahannama jidda summa la nansianna min kulli shiatin ayuhum ashaddu ala arrahmani ijja summa la naxnu aclamu billadina hum awlaa biha sirriya wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika xasban maqdiya foofu la suñu borom ñu waxee siraat nee na amul kenn ci yéen lu dul dana egg ci safara rek waariduha dana arrivé safara arrivé ci barab nag ak dugg ba bopp nee na loolu xas ah man baq bi yaa yàlla àtte na ko ba pare bu ñu ñëwee ba pare nag du ñu koy traversé mooy siraat summa nunajji alladina taqaw borom bi nee na keroog ci may musal mooy amul taqwa amul sant amul fa bi boo bokk amul daraja fay ragal yàlla xam ne moo tax ñuy def mboolem xeeti jàmm yàlla yi taqwa la ci waaye nag man nasaru saalihiina fii haaji nee na ñi nga xam ne ay tooñkat lañu woon ñooñu moom ñu bàyyi leen du góob bi sama dikk nañ tey woon Buxaari yi yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne nee nañ jullit ñi fu ñu muccee ci safara am na fu leen di téye ci ab diggante benn pont boo xam ne dafa nekk diggante àjjana ak safara foofu la ñu taxaw fa yaxtasu li baadihim min baad masaalin kaanat baynahum fi dunia te nag su ko defee suñu borom tabaraka wa taala fay yoon te ci seen biir tooñ yi amoon doon te ñoom ñëpp sax texe nañ waaye ay ram bu seen te dana am ci biir waaw texe ba pare itam ci seen biir ay tooñaa ngi amoon na ci doonte xëy na nag du nekk tooñaa ngi yu lay du lay yóbbu safara te yu ëppaate dara ñu dana ci de xanaa yéen ñëpp jàll ngeen waaye nag amoon nga téeméer yaa téeméer bi rek dañ ci fay ci ñaar fay ci kii fanweer nga xam ne danga dugg àjjana mais dana wàññi sa daraja dana wàññi sa daraja ñun ñëpp di texe ba pare dañ leen di boolewaat ñu remboursé kenn ku ne remboursé sa borom dëgg fa defoon ci tooñaay fa yaxtasu ba ibaatihim min baad masalim kaarin baynahum hatta ida usibu wa nuqu an qutila lahum farijan ci ba set métti nag yàlla moom jéggal na leen li nekkoon seen diggante yi itam remboursé nañ ko ba kenn yoroon kenn dara ndax ba baaral te moom amul remboursé rek amaloon nga ma nangam fay ma yow itam amel nga ma nangam fay ma kenn ku ne kenn ku ne remboursé la borom ba ñëpp ku ne jot li nga war a jot kenn ku ne xam nag léegi fi nga def nee nañu dugal leen ñu dugg àjjana mu ne fa wallati nafsu muhammadin bi yadihi li ahadi la ahadihum la ahaduhum ahda liman filihi fi janna minhu bi man bi bi man jëlitin kaana fi dunya mu ne bu ñu duggee aljana kenn ku na muy xamee këram ak place am ci aljana moom la gën a xam këram jëm defoon ci ak dugg rek da ngay daan def jawal sa kër da koy daan di xàmmee si naan ak see def Abdullah ibn Rawaha aaya bi masaa yegg si day jooy in minkum illa waaridu mu ne yàlla na ma dinaa ñëw safar in minkum law amul kenn ci yéen dinaa ñëw safar dana ñëw safar mu ne wala yàlla xamaluma nag ne danaa fa jóge ndax dafa wax ne ñi ragal yàlla ñoo fay jóge te man yàlla xamaluma ba xam ñi ragal yàlla laa bokkam ne nee na huwa aalamu bi man ittaqa moom moo xam ñi ragal yàlla kon boo xam ne nee na sax egg ci ma wóor na te teg jóge fu wóor nee na looloo tax moom aaya bi raglu ci moom loolu ñu jëlee ci Anas ibnu Malik radiyallahu anhu mu ne benn bis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toog suñ biir dina ba yàgg su mel ne lu xaw a jeex ci xaw a gëmmen nee na daal di sikki daal di muñ ne ko waaw yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak kay rek mu ne nasarat alayya alifan sura yuqra'u fiha bismillahi arrahmani irrahim inna a'taynaka alkawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al mu ne leen xaar woo lañ wàcce ci man léegi borom bi nee na jox na ma kaw sax digal ma ne naa julli ngir yàlla naa ren bi ngir yàlla ne ko ñi la bañ noonu ñooñu la seen bis di tàgg duñ am continue mu daal di leen waaw ndax xam ngeen luy kaw sax ne ko yàllaa ko yonentam moo ko xam te dex la goo xam ne yàlla moo ma ko dig jiwu bare sa nekk sama xeet ca la ñuy rotti ca la ñuy naan mu ne leen ay pot dañ tey naane toll na ni biddiw ataman mu ne dana am nag jaam yoo xam ne bu ñuy ñëw balaa kay dàqale te ma ne ñooñu sama xeet lañ bokk ñu ne maa tadri maa xadasa faata ci xamoo lu ñu tos sa gannaaw kon tos dara gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu garaaw la loo xam ne dana tax nit ñu dàq ko ci dégg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu loolu bokk na ci musiba yi bida ci ki sayul Buxaari ba tey jële ci Sahl ibn Sa'd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ana faratukum alal xaw man maa leen di dawlu maa leen di jiitu ca dégg ba man marra alayya shariba ku ma fa fekk si naan wa man shariba lam yasma abadan ku naan nag dootoo mar mukk mu ne la yaridanna alayya aqwamun arifuhum wa yarifuni summa yuxaalu bayni wa bayna mu ne ay nit danañ ñëw jublu ci ma ma xam leen ñu xam waaye nee na ñu dox sama diggante ndax am na lu ñu sos ci diine ji loo xam ne nag bokk nag li ma andi woon borom bi nee na ko ñi andi ci diine ji lu bokk la li nga andi ñooñu jotee toog ñoom dara allaziina farraqoo diinahum wa kaanoo shiya'an ñooñu lasta minhum ci teqatuñu yow la daa ko ñu taxale seen diine ku ne andi dara teg te lii ku ci nekkul man mënumaa ànd ak yow nekkoo ci lislaam ah bi ne na o ñooñu lasta minhum fi shay innama amruhum ila allah yàlla mi nga xam ne moom moom moom bindee fi ku baax ak ku kon ak ñëpp ci moom la ñuy jëm ilayhi marji'uhum jamii'an ñooñu seen dossier directement ci yàlla lay yonent bi seen seen seere mu dolli see Abu Saïd al-Xudri yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne fa aqulu innahum minni ne suñ demaa bii bokkuñ ci yow ma ni leen ci man lañ bokk te ñu ne ma innaka la tadri ma ahdathu ba'dak amoo lu ñu sos sa gannaaw nee na ma ne sos an sos an bi man xayyara baax na sori na sori képp koo xam ne soppi nga sama gannaaw képp koo xam ne soppi nga ci daala ci ci sama gannaaw sori sori juróom-ñaareelu mazhab mooy nag ak safaa al kubra mooy ramb mu yem mu mag bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ramb ramb lu am la te ñoo xam ne nag moom ramb rek lañ passé dañ koy defar défendre ñu ne haulaay sufahauna inda allah ñoo nomee ay nit dañoo nomee ñeneen ramb nag te signé nañ leen ba pare moom la borom ne qul astabbiuuna allaha bima la yaalamu fi samawati wala fil ard yéen da ngeen di communiquer di yëgal yàlla lu mu xam moom jékki-jékki dana nit dafa yàlla ji toolu yoon man rek président bi nga seen domaine seen bopp seen i préfet seen i gouverneur de président bi ci mooy suñu préfet ci mooy suñu préfet no désigné préfet ci mooy suñu sous-préfet seen administration ñëpp ngeen bëggal ko borom bi ne ñi nga xam ne dañuy wax ne haulaay sufahaa ndax ñi noonu yor ñooñu dañuy xamal xanaa dañu bëgg a xamal yàlla kon lu mu xamul rabbi ne yawma idin laa tanfau safaa illa man azina lahu rabbi keroog ramm du fa jëriñ lu dul koo xam ne yàlla moo ko jox ndigal ci ramm ñii njëkk ramm mooy yonent yi ramm moom honneur la rek bu ñuy jox ni yàlla moo jéggal nga ko soog ba noppi mën naa la jéggale ci loxol rek jaam xam ne safara waroon a dem waaye yàlla jéggal na ko waaye nag teral ci kenn ci jaamam yi jaarale jéggal googu ci moom kon na nekk ci loolu du mel rek bu ñuy def ci décision de prix ak école de xeetal yi ki nga xam ne élève bi na xam ne corrigé nañ ba gis ne am na note bu baax a baax a baax loolu war koo jox prix ñu invité waa dëkk bi imam beeg chef de quartier beeg dignité yi ñëpp toog bu ñu yëkkatee prix bi dañuy wax ne chef de quartier kaay jox ko ko loolu doo mën a xam mu demee bu boobaa est ce que chef de quartier bi moo ko jox prix bi déedéet da cee am ndigal man la la yarfau indahu boo gisee lu mel noonu nag benn élève bi ne ah comme chef de quartier day joxe prix kat man bu déwee ne du ma jàng damay dem di bale kër chef de quartier rek waaw fu chef de quartier jëm rek ma nga bu bagaatam bis bu ñuy distribuer prix rek buñ ne ko chef parce que chef de quartier bi buñ ko joxee dañ koy firndeel ci ne ko chef de quartier jox nañ la prix rek boole ci élèves yi ko la neex nga jox ko te dañ ciy bind sax prix bi te ko moom wala yanfa'una illa liman ittaba buñ ca demee ràmm yàlla dana jox quota nga ne eh yow jox naa la téeméer am yaa ngi laa ko doon def ci sa bopp. te xool eh yow di boole naa le eh yow boole naa le te de te am ñoo xam ne ñu ngi commencé jaay quota boobu fii jàpp nañ ne am nañ quota ñi nga la fay jaay ku bëgg nga ñëw ñu bind la ci nga joxe waaw léegi seen disposition ba ba ngay fàtt nag loolu mooy prix bi waaw ah, loolu bind lañ la ci seen dëkk quota ràmm fa da nga ci bokk bokk fa. ay ndax yu weddu ko kon xam nga noonu la demee nu yàllay teral la waaye yàlla moo de moo jéggale ba pare kon ramb gi itam ay façon la ñoo xam ne dañ leen di ramb di dugal leen àjjana te kenn leen rek loolu danañ ci jëkk na am rambu beneen yàlla da leen di baal baal boobu mu am ñu ko jaarale dugg àjjana ci kenn leen rek ñaareel ba ñoo xam ne safara yeyoon ci ñoom ñoom itam ñu romb leen ñu bañ a dugg safara ñetteel ba ñoo xam ne dugg nañ sax ci aljanna waaye ñu romb leen seen daraja yokk bañ jamoon ci aljanna ñu yokkal leen na ci am ñeenteel ba nag mooy romb ñoo xam ne dañoo duggoon safara ba pare ngir ñu jënd biir safara woowu kon yooyu yëpp ay tolluwaay la ñoo xam ne yi ñu toll yobal xiyam la daanaka mooy juróom-ñaari tolluwaay yooyu moom mi nga wax ne waxtu bi jeex na ba ko doon juróom-ñetteel nag mooy ëpp ci melaw aljanna ak melaw safar dañ wax rek benn bu ne ab aaya safara wa taala melal nanu la fa nekk ci musiba gën ñu mën ko wattandi nee fan la si la kafaroo xotti allahum siyaabun min naar nee na même seen yére yi ñuy sol yére yi safara lañ ko tusabbu min nee na ndox mu baax ba fam mën a yem moom lañ leen di dimbi di ko def seen bopp aru bihi maa fi butoonihim mën te bu leen ko sottee seen yaram bi ak li nekkoon ci seen biir bi ay butit léppay jaxasoo ànd nekk benn tànk wa lahum maqaami'u min hadiid nee na am nañ seen tiim di leen dóor ay baltey fe kullama araadu an yaxruju minha min ghammin u'iidu fii nee saa bu dee bëre di buur jëm ci buntu ba bëgg a génn ba ma xam leen ñu fam wazuqu azabal ariq dina leen mos leen mbugal moomu nga xam ne mooy mbugalum safara bu dee aljanna moom borom bi ne wa bashir wa amilu salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar kullama rusiqu minha min samaratin risqa qalu hadha allati rusiqna min qablu wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwaj mutahhara wa hum fiha xaalid bu dee dëggalal ñi gëm yàlla tey def ko baax ne dañ xam ne li ñuy def lu neen am na lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar am nañ fa seen boroom àjjana yoo xam ne tax yaa ngay saa buñ leen wërsëgalee andil leen meññat nee na buñ ko xoolee dañ naan ah lii kat mooy liñ lekkoon dem waaye nee na boo ko mosee tax gi day wut le àjjana yi boo mos tey day mel ne mosoo ko mos melokaan bi nag mooy nuroo déedéet pomme day wax comme moom lekk naa ko ba tey waaye ñu la rek xam nga si ah pomme de xanaa moom bokkul ak ma moo tax borom ne wa udu bihi mutasabiha day nuroo day nuroo waaye bokkut genn xéewalu àjjana bi rek la day loo am tey beneen ngay amal mu ne wala fiha aswaajun mutahhara am nañ na soxna yu laat te fii am nañ fay borom kër yoo xam ne mooy ku ca taxe sa borom kër taxe kooka mooy doonaat sa borom kër ku ci taxe te te a ca nekk sa ka ngay ba ngay faatu ki nga faatu ci kubam te mu texe mooy nekk sa borom kër am naa nag ki nga xam ne moom borom këram dafa texewut wala kee soxnaam dafa texewut ñooñu la ñuy boole borom kër góor ñi baax te seeni soxna dem safara ak jigéen ñi baax te seeni jëkkër dem safara di jël jigéen ña baax texe boole leen ak góor ña nga xam ne ñoom it soxnaa nga safara ñooñu la borom bi tabaraka wa di boole eh, ci biir aljanna yàlla nu yàlla defal eh, ak njëggal yàlla nu yàlla defal yërmande yàlla nu yàlla defal bis bu dee di ñëw fekku nit ci melokaan ba suñu borom tabaraka wa taala ci nun ñi nga xam ne dañ naan leen yaa ayyatuha nafsul mutmainna irjii ila rabbik yow bakkan bi nga xam ne dal nga ci ngëm yàlla kaay dal sa borom raadiyatan ab gërëm nga yàlla yàlla gërëm dal fadxuli fi ibaadi duggal ci fii sama jaam ñu baax ni waaye waddu jannati dugal sama biir aljanna yàlla na ko yàlla defal sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi